rabbi aawuzu bika min hamazaati shayaatiin wa aawuzu bika an yaxduruun bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayyidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaan wa tamkin amma baad fa hada al yawm yawmul iid li kulli muminin muslimin muhsinin said fashkuru llaha tabaraka wa taala fih ala kawnihi sururan linnabi wa liman yaqtafi salla wa sallama alayhi fi alihi wa sahbihi wa kulli man tala wa usikum fihi wa ba'dahu bi mulazamati mahtira lakum min al axlaaqi wal aqaid والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء qaala llaahu qaala llaahu tabaaraka wa taala wa maa aataakum rasulu fa xuzuuhu wa qaala tabaaraka wa taala fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara fa tuuba liman axada maa ataa bihi rasul alayhi bi alihi wa saxbihi salaama muti suul wa lilladi himmatuhu tartaqi ila alxayr laa ila alkadari wa dayr wa waylu liman lam yaxud ma ataa bihi lmuntaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bintiqa bintiqa wa usikum ayuha alixwan li wajhi man kafani dawi alxasadi walcudwan bi an laa tufaariqu maxtira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fiali ma lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mima yuwajjihu ila gayrikum al ajra wa rida wa sawaaba wala tatlubul karama bi xeyri taqwa fa inna al karama huwa taqwa wala tatlubul izzata min xeyri al aziz al mu'izz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi al aaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwa tarakahu maa nafsihi wa hawa wa man aqbala ila llahi tabaraka wa taala maa al wasila qaada ilayhi kulla ma kaana yartaqi ilayhi min al jamila yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum ittaqillaha xaytu kunt man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfau fihi inda mumiti mayti wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man waadahu nasiha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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد fa hada al yawmu yawmun mubarakun wa lana fihi shay'un fihi lam nusharak fahmadullaha tabaraka wa taala ala ma jaada bihi fii lil muntaqa alayhi salaamahu bi jamia muqtafi fa inna hada al yawm yawmu aklin wa shurbin wa atqin bi fadli man jaada bi fatqi ratq fa man shakara allaha tabaraka wa taala fihi fa innahu yazfaru bi kulli ma min alxayri yastafihi fatlubu fihi min allahi tabaraka wa taala xayra fa innahu tabaraka wa taala yasrifu ila gayrikum dayra wa tubu fihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati al asyan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila gayrikum lawi tugyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi wassunnati wal ijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfikum man abaw fihi lijtimaa bijaahi dil gazawaati al murdiya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 mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante suñ boroom julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax di leen ndokkeel bu baax ci bis bi nga xamee ne bisu mbégte la bis bi nga xamee ne feetuk jullit ñi ñëpp la di leen jéggulu di leen baal àq baalu àq jun xam ak jun xamut di ñaan suñ borom lu ñu jéggal ci barke Sëriñ Touba ten fekkewaat bis bi ay déwén yu bare bare bare nuyoo bi ak ziar bi ak ndokkeel gi dañ koy dañ ciy jiital suñu euh, kilifa gi toog Cheikh Mouhamadul Mahfouz di ñaan suñu boroom sàmm ko balim yéene liggéeyal lislaam lépp mu àggale ko moo képp koo xamee ne nag danga nekk ci toolu bi lislaam xam na ne bis bii bis bu màgg la bis bii bis bu màgg la ndax waxoon nañ ne alayhi salaatu wasalaam nee na euh, suñu boroom def lu baax ci fukki fan yii moo gënal suñu boroom moo gënal suñu boroom lu dul koo xamee ne dafa génn di xeex ci yoonu yàlla ba bakkanam des fa alalam des fa nee na loolu rek la xam la wax ne loolu moo gën jaamu yàlla ci bis yi waaye lu dul loolu rek jaamu yàlla ci bis yi ñu nekk di fukki fan yi moo ko gën loolu itam waxoon nañ ne li may fukki fan yi wala juróom-ñeenti fan yi ngëneel mooy bis bi ñu nekk di bisub tabaski li ko bis yooyu jiitu moo tax bis yooyu yëpp am ngëneel ndax alayhi salaatu wasalaam moo wax ne bis yëpp bis bi ci gën a màgg mooy bisub tabaski azamul ayaami indallahi yowmu nahr mooy feet gi nga xamee ne mën na na wax ne mooy xeetu mooy feetu sellal suñ boroom ak wéetal suñ boroom mooy feet gi nga xamee ne su euh, suñu maam Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mooy waajuru yonent yépp moo gën a màgg ginnaaw ali salaatu wasalaam ci yonent yépp moo ko sos moo ko sunnaal yonent bi ali salaatu wasalaam dundal ko mooy bis ba nga xamee ne dañ ci bi di ci tuur darat ana lu tax ngir jëmmi yàlla dong ngir jëmm yàlla dong moo tax ñuy tuur dara ci bis bii ngir wan ko ne danoo jeex ci moom tàkk ci bëgg ko ci ragal ko ci xeemeem ko ci lépp loo xamee ne moom lañuy ñu digal ñu ko ndax ku ne xam na ne jaamu yàlla yi bari na lool moo xam koor la wala joxe asaka wala aj màkka walla yu xeet yooyu waaye nag ren di tuur deret ngir jëmmi suñu borom dafa ràññee ko ci jaamu yàlla yi moo tax suñu suñu borom bi muy santaane ñu jaamu ko daf daf ko settee tudd ko moom ak julli ñoom ñaar rek la tudd yeneen jaamu yàlla yépp daf leen a daf leen a gàttal daf leen a dugal ci biir waaye ñoom ñaar rek la tudd ndax suñ borom mi wax ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi dalika umirtu wa ana awwalul muslimin nee na yow alayhi salaatu wasalaam waxal ne julli gi may julli ak tuur deret gi may tuur deret ak jëf yu baax yi may def ci sama dund gépp ak sama mujj yowmal qiyaam lépp ñeel na yàlla yàlla mi nga xamee ne mooy boroom jaam yi yàlla mi nga xamee ne kenn du ko bokkaale te wax leen ne jullit ñi man maa ci jiitu man yonent bi alayhi salaatu salaam kon loolu dañ ci xamee ngëneelul ak tuur deret ci bisub tabaski ndax moom ak julli rek la suñ boroom tudd waaye yeneen jàmm yàlla yépp def leen a boole tudd leen moo tax ma ne ko qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya maxyaaya mooy sama dund gi li ma ci def ci ay jaamu yàlla yépp wa mamaati sama mujj ci bu ma faatoo lépp ñeel na la yow yàlla day wane ne kon ñun suñ lépp dañ koo war jox suñ boroom li neex suñ borom lan war di xëy di ci gont di ci fanaan gi nag buñ koy wax yàpp wi taxut taxut a jug taxuñoo jug yàpp wi taxuñoo jug ni ma ko waxee daa am li muy lu muy symboliser lu muy tegtale te mooy wéetal suñ boroom ak sellal suñuy jëf yépp def ko ngir suñu borom moo tax suñu borom di wax ci alquran ne lan yanaala llaaha luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum nee na li nga xamee ne moom la suñ boroom di xool mooy am suñ boroom lu càggante ne ndawal gi la de lu càggante ne deret bi ngeen di tuur la de waaye mooy ragal yàlla gi ki koy tuur di àndal sellal ci gi nga xamee ne kiy tëbaski moom lay àndal moo ñor suñ boroom loolu nag buñ seetloo ñu bare ci ñun dañ koo ñàkk ñu baree ci ñun buñ dee waxante dëgg rek sellal googu des na ndax rax nañ ci ay puukarewu ak réy réylu di jënd loo xamee ne mën nañ koo tudde yàq ngir wane wu ci rek loolu kon safaane woo naag tabaski war nañ ci bàyyi xel ci suñu jaamu yàlla ñu bañ cee bàyyi xel mbindeef yi waaye di ko def ngir jëmmi suñu boroom dong tax waaye buñ jënd am xar ci ñi xam ne xar mi nangam leen ko jënde xar mi un million ci deux million ci cinq cent mille loolu day wane ne yàlla taxut waaye nit ñi ñoo tax nit ñi gis loolu xam loolu moo tax te suñ boroom moom looy def rek boo ko defut ngir jëmm ñi dong du ko nangu nee na moom du bokkaale loo def boole ca kaneen mu bàyyee la ak kaneen ko te ku dul moom nag amoo njariñ amoo lor suñ borom rek moo am njariñ moo am lor tabaski nag na soo xamee ne dafa feddliku la ci bépp jullit boo xamee ne yaa ngi ànd ak sam xel nekk majeur nekk gor ba pare am ko am am loo xamee ne mën nga ci jëndum tabaski te loolu bi koy boroom xam-xam yi di xayma mooy koo xamee ne bu am mi jeexee mu mën a génne asaka maanaam bu bu am mi jeexee mu mën a génne mu mu mu mën a dundal njabootam génne asaka wala koo xamee ne boo jëndee xarum tabaski du tee njëgg njëgg am nga amaat ko njëg njëgg nekk fa fekkee bu fe bu fekkee boo jëndee tabaski dootoo yor dara tabaski warul la loolu nañ ci bàyyi xel suñu su feddliku la su feddliku la ndax alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne képp koo xamee ne yàlla may na la am koom te tëbaski woo bul jege suñu jullikaay bi kon loolu rek ndigal loolu rek jar na def ko waaye itam nee na bis bii ñu nekk di bisub tëbaski amul génn jëf joo xamee ne moo gënal suñu boroom ci tuur deret nee na lépp luñ ciy def ci bis bii tuur deret moo ci gënal suñu boroom te aaya boobu rek firnde la ci ndax daf koo tudd yeneen jaamu yàlla yépp ma tudd leen waaye moom dong la tudd te alayhi salaatu wasalaam ah, tuxale leen ci anas mu ne bu daan tabaski ñaari kuy ñaari kuy ñaari gàtt yu mag la daan tabaskee benn bi ngir boppam bi ci des mu fasal ci képp koo xamee ne sa loxo jotut sa gannaaw kon sellal boobu nañ ci bàyyi xel ndax Serigne Touba mi nga xamee ne moom lañ yaakaar bokk na ci ndénkaane yim ñi dénkoon jamono yi muy laata muy génn di ca tukkeem ba bokk na ci lam ñu waxoon yaa qawmi ijtahidu fi islaahi amalikum kulla ijtihaad wax ju wax ju bari la daan ne li anna allaha laa yaqbalu amalan illa ma urida bihi wajhahu wa yakunu xaalisan lillahi taala neena na yéen sama gaay yi yéen yi nga xamee ne yéen ànd ak man na ngeen góorgóorlu ci seeni jaamu yàlla ngeen koy defar ba mu baax ndax de yàlla du nangu jaamu yàlla goo xamee ne dañ caa bëgg leneen lu dul yàlla leneen loo bëgg ci jaamu yàlla lu dul yàlla rek suñu borom du ko nangu niñ ko waxe woon itam bés yi jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla yépp a baax waaye li ca gën mooy joxe ndax sëriñ Tuubaa ni mu ko waxe nee ci gën ci nit ñi mooy ki leen di dimbale ama leen njariñ nee na kooku mu gën ci nit ñi te loolu waxe su waxe alayhi salaatu wasalaam moom la fedd li ndax nee na jullit ñëpp wala ñëpp alxalqu ayaalullaahi def yëpp rek njabootu suñu borom la ndax suñu borom moo leen sàkk ki gën ci ñoom nag mooy ki ëpp ci ñoom njariñ moo tax sopp nañ ci bis bii képp koo xamee ne rànn nga sopp nañ ci nga def ko ñetti cër wala nga génn ci ñetti wàll bu njëkk ba muy loo xamee ne yàgg sa njaboot yéen ci feetoo yéen ci tëbëskee ba ca des say jege ñaale ñi nga xamee ne ñoo la jege ak say xarit ak say dëkkandoo ba ca des ña nga xamee ne ñoo ñoom la seen loxo jotul seen ginnaaw fexe ba bis bi kenn bañ a nekk ci njàqare kenn bañ a nekk ci xiif loolu moo tax a jóg bis bi ndax suñ borom de moo ñu wax ne fa kulu minha wa ataamu alqaania wal muctar kadalika saxarnaha la laalakum tashkurun nee na tabaski bi na ngeen ci jëfandiku waaye itam na ngeen ci lele na ngeen ci joxe ana ku ngeen ciy jox seeni jege ñaale ak seeni dëkkandoo ak faqir yi kon loolu war na ci bàyyi xel bu baax waaye itam bokk na ci e, li nga xamee ne moom la moo moo gën a baax ci bis bi di ci bari looy takbir looy wax allahu akbar di ko ci baril fukki fan yépp waxoon nan ne bokk na ci liñ ko li gën a baax ci ñuy dundi la ko fukki fan yi waaye nag bis bi def cee raw bis bi def cee raw tàmbale ko ci bin jullee julli gii ñu julli ba bisub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 waaye nin ko waxe woon itam nin ko waxe woon itam màggal suñ boroom dëgg dëgg dëgg mooy nga fexe ba du la gis ci lu muy tere fexe ba saa bu la xoolee gis la ci la ko neex loolu mooy dëgg dëggi takbiir mooy dëgg dëggi wax allahu akbar nit ki bu saxalee ci làmmiñam saa su nekk muy wax allahu akbar tey topp nit ñi wala topp bakkanam wala topp kaneen ci mooy yàlla day mel ni waxul dara dëgg-dëgg wax allahu akbar mooy sax ci ndigalul suñu boroom yi te bàyyi ay tereem boo ci nekkee allahu akbar lu mu néew néew baax na waaye boo ci nekkut lu bari bari amul njariñ moo tax cheikhul xadim mi nga xamee ne moom lañ yaakaar bokk na ci lim ñu dénk ci xutba bi ñuy jàng nee na usikum fiihi wa baadahu bi mulazamati maxtira lakum min al axlaaqi wal aqaaidi wal aqwaali wal afaali li wajhi llahi taala al karim al qaid nee na maa ngi leen di dénk ci bis bii ak ci ginnaaw bis bii ngeen takkoog li nga xamee ne moom lañ leen tànnal moom la leen yàlla ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam tànnal ci ay jikko yu rafet ak i pas-pas ak i wax ak i jëf te def ko nag ngir jëmm yàlla dong te nee na maa ngi leen di moytu moytandikuloo ci bis bii ak ci ginnaaw bis bii ci lépp loo xamee ne yàlla tànnlu leen ko ci ay jaamu yàlla loolu day wane ne am na jaamu yàlla yoo xamee ne yàlla tànn ko dan ko fent rek yàlla moom jaamu yàlla yi muy nangu mooy ji mu digle ba pare dëppoog sunna su yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na kon maa ngi leen di loo ngeen bàyyi ci bis bi ak ci ginnaaw bis bi lépp loo xamee ne yàlla tànnul leen ko ci ay jaamu yàlla ak i aada ndax day li leen yàlla tànnal texe lépp lu ngeen bëgg ci ak texe rek daje na ci daje na ci li leen yàlla tànnal nee na nag tuubaa li man laa yaltafitu illa gayri rabbihi mulaaziman maxtiira lahu min muniiru bi nee na texe day ñeel nag koo xamee ne doo gëstu su ku dul yàlla lépp loo def rek yàlla dong mooy tax ci ndigalu suñ boroom yi rek ngay sax te dul la gis ci ay tere waaye tuur di tam baax na ci ñu xam li ko tax a jóg ndax suñ boroom jaamu yàlla gum santaane rek am na intérêt am na intérêt bu ko tax a jóg maslaxa bokk na ca euh, li tax suñ borom farataal tuur deret ci jullit bu ko man ngir mu feeñal cantam suñ borom ngir mu feeñal ak cantam ci suñ borom ngir da koy def ngir sant suñ borom ci xéewalam yi nga xamee ne kenn mënu koo lim xewal yooyu ba ci jiitu mooy xewalu jub te teg ci siraatul mustaqim xewal moo féet kaw xewal yépp moo tax ku ci julli faw mu ñaan ko ci julli ci ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin nee na mooy yoon wi nga xamee ne mooy yoonu ñi nga xamee ne dafa leen dama leen defal xéewal kon suñ borom bi muy wax ñi ñi mu defal xéewal waxut tuddut ñi jox alal donte alal yi itam mën naa nekk jumtukaay ngir jaamu yàlla waaye ñi jox ak njub la tudd ñi jox ak njub la tudd donte nag alal bari na jaamu yàlla boo yoo xamee ne boo ko amul doo ko mën a def lu demee nga joxe asaka yor sa njaboot yooyu yëpp boo amut alal doo ko man kon alal lu am solo la ci diine moo tax alayhi salaatu wasalaam ne ki gën ci yéen mooy ni'mal maalu saalix li rajuli saalix alal ju lew ju nekk ci loxob jullit bu baax wala waaju baax nee ne kooku moo gën ci nit ñi ndax lu baax rek la cay def waaye bokk na ci li ñuy sant suñ borom ci bis bi mooy dañoo may ñi fekke ndax am na ñoo xamee ne te bés ko woon nan daaw te fekki ko ren te kat euh, loolu du suñuy pexe du suñuy njàmbaar xéewal suñu borom dong la kon loolu itam dañ koy sante suñu boroom ci tabaski jii ñuy tabaski ndax alayhi salaatu wasalaam nee na ci gën ci yéen mooy ki nga xamee ne dafa am gudd fan ba pare ay jëfam rafet nee na kooku moo gën ci yéen ndax àdduna ci la ni fàggoo àllaaxira loo jiwutoon fii rek doo ko góobe fale waaye bokk na ci li ñuy sante suñu boroom jàmm ji muy xéewale ak wér gi mu jox loolu itam alal mayewu ko am xel mayewu ko dara mayewu ko yàlla rek moo koy maye waaye bokk na ci li ñuy sant suñu borom yombal gi muy yombal am tabaski man mën koo jënd ndax mooy li nga xamee ne ku ko jënd ku ko jënd bëggal ci sa njaboot ak ñu ñàkk ñeeg say jege ñaale dañ ci jële tex ak fii dañ ci jële texeg fii ndax ak feet la waaye dañ ci jële yàlla jéggal la say bàkkaar kon texeg àdduna ak àllaaxira la kon ñu ngi ñaan suñu boroom nangul ñu jaamu yàlla yi ñu def yépp ci fukki fan yi te saxal ñu ci ak njub saxal ñu ci li nga xamee ne moo neex Sëriñ tubaatam mooy ak njub dong yal nañ yàlla may ñu fekk ko ay déwén yu bare bare bare bare te ànd ak jàmm ak xéewal ak wërsëg barke Sëriñ Tuuba rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xilla lilladina amanu rabbana innaka raufu rahim rabbana xfir li wa li walidaya wa li man daxala bayti muminan rabbi xfir li rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman allahuma axfir lana allahuma jaalna min altawabin wa jaalna min almutatahirin balligh salati wa taslimi alayhi lahu fi al-ali wa sahbi wal azwaji ya allah wa asbilanna alayna rabbi aafiyatan wa hab lana alqasda fi ddaarayn ya allah وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله ودمرا كل اعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى معاه